Famara Ibrahima Cissé maa ngi lay nuyu. maa lay fay. Famara Ibrahima Cissé nga nekk président bu actif association des clients et société des sociétaires plutôt des institutions financières 31 octobre bi la ñu màggal bés bu ñu jagleel wàllum épargne est-ce que sénégalais yi ñu ngi denc xaalis ba léegi waaw wala déet. waaw sénégalais yi nag euh, boo amee seetlu bu baax bu ñu xoolee ci statistiques yi. néew na ñu ci denc xaalis néew na ñu siy dem aussi ci banque yi parce que ci seeni culture ci seeni aada ci seeni diine daanaka sénégalais yi xamuñu mbirum banque euh, donc euh, moo tax néew na ñu ci dem banque rawatina ñoo xam ne dañ fay dem di denc seen xaalis may wax ni euh, Sénégal comme monde bi daanaka dañoo am ay crises yoo xam ne dañ koo dañ koo jànkonteel crise bu ci njëkk bi mooy pandémie euh, corona bi mu nekkoon ay ay guddi yu métti ci sénégalais yi parce que ñu bëri ñàkkoon nañ ci seen liggéey ñu bëri amatuñ ci woon payor ñu bëri seeni entreprise wala seeni commerce doxatuloon donc euh, mu waraloon sax am ñoo xam ne lañu jotoon ne dañ ci génn koo mujj génne di ci mën a dundee crise boobu ñu yaakaar ne jeex na beneen crise ñëwaat muy geeru Ukraine bi am ci Russie guerre boobu tamit gis ngeen euh, li mu waral mooy euh, prix yëpp yokk ba kenn amatul lu mu desal loo xam ne dana ko mën a denc ci banque yi mu nekk crise bu métti boo xam ne état du Sénégal sax président de la république woote na ay concertation pale ak association de consommateurs yi ak acteurs yëpp pour ñu xool nu ñuy wàññee dund bi ba léegi loolu antuwul te ay proposition yoo xam ne euh, am na ay proposition yoo xam ne clients yi usagers yi population bi association de consommateurs yi ak professionnels yi def nañ ko donc mu doon ay crise yu métti yoo xam ne dañ koo bokk ak àddina mais ñu koy yëg bu baax a baax tax ni ten mëntul desal loo xam ne daf koy denc wala da koy épargner euh, crise yooyu nag ci contexte boobu lañu gis ñun suñuy banque ñu génne itam ay mesures ay mesures yoo xam ne dañuy wax ni Euh, compte épargne boo demee pour ibbi ko ci banque ba nga gis ni banque yi ci ëpp dañuy bañ bëggatuñu kuy ibbi compte épargne dañuy wax même ñi nga xam ne dañ fa amoon ay compte épargne sax dañ leen di woo téléphone pour que compte épargne yooyu ñu changé ko def ko compte courant may fàttali ni banque ba ñaari compte moo am dafa am compte boo xam ne épargne mooy dencuwaay xaalis boobu banque centrale dafa wax ni at bi bu dee banque ba da ko war fay da ko war a rémunérer donc foofu noonu banque ba mooy perte parce que bu boobaa day fay compte boobu parce que kooku dafa ci xaalisam banque ba di ko liggéeyee di ko lebal Masamba ak ma ma Masamba ak ma Mademba bu buñ ko fayee mu am cinq pour cent téeméer bu nekk ñett ak genn wàll yoo xam ne da ko war a compal jox ko ki nga xam ne moo fa ci xaalis bu nga xam ne moom la liggéeyee mu am beneen compte bu ñuy wax compte courant compte boobu euh, banque ba moo ci am xaalis parce que ay agio la ciy dagg ak ay frais yoo xam ne da koy dagg ci compte ba. léegi nag banques yi comme ñoom bëgguñu compal kenn bëgguñu séddoo kenn dañoo bëgg di jël sa alal di ko liggéeyee ba pare yow duñ la ci jox sa wàll ñu moo tax ñu naan dañuy bañ ko ubbi compte épargne wala boo waroon am nga fa compte épargne ñu ne la na nga ñëw jël sa compte épargne def ko compte euh, courant bu ko defee au lieu que ñu lay fay waaye dañ ciy dagg ay ay frais loolu nag li muy indi mooy thésaurisation thésaurisation mooy daanaka nit ñi bu leen wóoree ni seen i millions yu yor buñ ko yóbboo banque day gën a wàcceeku day gën a wàññeeku weer weer bu nekk at bu ne dañuy préféré di ko bàyyi seen kër di ko gis te du wàññeeku benn yoon di ko bàyyi seen kër nag ci suufu rolal yi di ko def ci suufu matelas yi di ko def seen i caayaar yi doxantoog moom di ko def ci biir pneu yi wala di ko bàyyi seen i place moo leen di gënal fuuf ñu jël ko naan dañ koy bàyyi ci ci ci banque bi chaque jour bu ñëwee gis ni euh, day wàññeeku. loolu moom mooy thésaurisation boo xam ne day freiner économie sunu économie réew ah beneen bi mooy da ngay gis euh, euh, nit ñi tamit euh, tellement que duñu sawar di bàyyi seen seen xaalis ci compte courant bi bu ko defee banque bi di faral di ci dagg ay agios et frais dañuy dañuy sax au delà de de de. la thésaurisation ñoom dañuy dañuy préférer euh, bañ ko bañ ko bañ ko sax dugali banque day wàññi taux bancarisation bi euh, may fàttali ni euh, du banque rek lañ mën a épargner képp kuy épargner mën nga dem banque pour sénégale yi gën a xam dëgg la mais tam mën nga épargner ci compagnie d'assurance yi mën nga épargner ci ci fonds de pension yi rek retraite mën nga épargner ci mutuelle yi mutuelle de santé yi gestion de microfinance yi mën nga épargner ci marché financier bi ci bourse yi mën nga épargner ci tontine yi ñu koy wooyee natt yi gars yi di def ci koñ yi di ko def ko ci biir kër yi léegi ñàkk épargne boobu il faut ñu xam ne euh, beneen gàllankoor bu garaaw bu muy def mooy day tax banque bi dootul amati pression parce que yow tey boo jëlee sa million dugal ko ci banque ba mu wóor banque bi ni at mi bu dee mu liggéey ci ñàkk ci liggéey dana ko fay trois virgule cinq pour cent parce que réglementation bee ko wax banque bi dina góorgóorlu ba joxe xaalis boobu ma sàmb ma dem ba ñu liggéey ci fay ko buñ ko fayee mu mën laa fay yow parce que loolu day faciliter accès au crédit mais banque bi bu ko wóoree ni moom compte épargne supprimé ne ko léegi yow yaa ngi ci compte dugal xaalis bi ci compte courant moom moo lay dagg amatul benn pression day tax non seulement taux d'intérêt yi day élevé parce que ku muy labal tey moom mooy am euh, amul amul xam na ni xaalis boobu ko ko dencee ba at bi dara du ko ci fekk parce que amul dara kenn ku muy fay day tax moom pour mu joxe ko day métti accès au crédit day difficile mais aussi di ci gën a doy waar mooy day tax taux d'intérêt yi di gën a élevé parce que lu neex la ñuy jaayee xaalis bi parce que xam na ni buñ ko jaayalu bu fa nekkee tam nekk fa dara du leen ci fekk moo tax nag euh, épargne il faut que ñu favoriser ko euh, tax na ñun interpellé nañ banque centrale interpellé nañu état du Sénégal Euh, ci concertation bi président woote woon ci cherté de la vie ñun wax nañoo ak moom nee nañ ko xamal nañ ko ni banques yi dañuy bañ bu épargner te loolu du dëgg du yoon léegi nag état du Sénégal ak banque centrale ñoo war a jël seen responsabilité pour favoriser épargne bu ko defee nit ñi di mën a denc seen xaalis en toute tranquillité en toute sécurité et que voilà bu at bi dee ñu rémunéré ko bu ko defee ñu encourager épargne loolu nag mesures yooyu nu ñu koy jëlee mooy mhm. comme population bi euh, ñu si bëri jànguñu te xamuñu mbirum banque ñu def li ñuy wax éducation financière éducation financière mooy tàggat population bi ci mbirum banque yi tàggat leen xamal leen seen ak ak yelleef bu ko xamal leen ni xaalis boo ko yoree danga koy investir bala nga denc ko denc ba nag du kër ga waaye ca banque ba nga koy dencee boo ko mënul investir te booy investir tamit na nga investir ci ay créneaux yoo xam ne day porteur bañ a tax nga per te tamit boo dencee sa xaalis tamit bañ ko denc sa kër denc ko ci banque ba dana am at bu nekk luñ ci tompal jox la mu nekk sa moomeel mu nekk loo xam ne day gën a ful alal jooju donc éducation financière boobu état bee ko war a def malheureusement nekkuñ du ko def parce que ñi ñu sas pour ñu def ko dañoo liggéeyul kenn du leen gis sur le terrain kenn du leen gis ñu koy dérouler moo tax état war a jël ay responsabilités ak banque centrale de concert avec association de consommateurs yi ñu fexe góorgóorlu ni ñu defee éducation financière yi ndax population bi bàyyi xaalis bi muy jël di ko bàyyi ci suuf rolal bi wala di ko bàyyi ci marché yi seen place marché yi muy tàkk wala ci gafaga yi wala ci ci caare yu koy seen caare yi di doxantoog moom wala di doxantoog moom seen seen seen i seen ak yooyu ñu yóbbu ko ci banque yi bu ko defee économie réew bu mën cee soxali euh, ñu gis ne tamit si compte courant yi Famara si Cissé souvent da ngeen di wax dafa am arnaque yu bëree bëri mën nga ñu expliquer un peu par rapport ak loolu waaw arnaque bëri na trop ci compte courant yi non seulement am na ay coupures abusives yoo xam ne banques yi ñu ngi koy def mais surtout dafa am ay cybercriminel ay criminels yoo xam cybercriminel yoo xam ne dañuy jël say données dugg sa biir compte bu ko defee tibb mbir mi tibb tibb tibb euh, alal dafa nekk yëpp yow yaay yow yaay perte rek te warte demee noonu parce que il faut que sénégalais xam ne compte yi dañ ko assurer carte yi ngeen yor dañ koo assurer donc mbirum banque lépp daanaka client bi dañ ko koy fayloo ay assurance léegi nag assurance yooyu ñu koy fayloo da koo war a njëriñ pour que bu ko sinistre arrivé arnaque arrivé ko cybercriminel dugg fa wala banque def ko naka sudul noonu ñu war ko mën a fay al xaalisam assurance bi toppi délinquant bi délinquant financier bi noonu la war a mën a demee mais malheureusement comme clients yi xamuñu seen ak yele ñoom dañuy tibb seen xaalis abul benn assurance bi leen di fay et mutuel tel bi ñoom rek mooy ñàkk loolu nag day décourager taux de bancarisation day décourager nit ñi pour ñuy jël seen alal di ko yóbbu ci banque yi donc arnaque yi bëri na lool lool lool mais abus abus abus abus yi tamit bëri na lool lool mooy jaay doole bu ñuy def client ci banque yi xam ne mënuñoo génn ñu siy profité di tibb seen i xaalis loolu nag dafa war a jeex. Euh, beneen bonk bu am solo ñu gisoon ni bokk nga si ñoon ñi doon xeex en fait euh, par rapport a crise bi am ca poste euh, jafe-jafe yu ñu am ci wàllum koppar bokkoon nga ci xeex bi tey jii nga gis ni crise ba am ca poste tax na njiitu réew tabaat DG bu bees di Mohamed Diaité jëli fa Abdoulaye Bibi Baldé nga xalaatee lu ni mel est-ce que yaakaar nga ni kii mën na defaraat poste Mohamed ñu am ci yaakaar bu baax parce que yaakaar nañ ne président euh, du changer directeur rek pour changer directeur bu changer benn directeur teg fa beneen yaakaar naa ne bëgg na kooku def résultat te pour mu def résultat il faut que ñu il faut moom état bi accompagner ko état bi nag nan lay accompagner poste mooy li ñuy wax les le les C de la finance capitalisation il faut que poste ñu dugal fa xaalis parce que post li ko teree dem ñëpp xam nañ ko li ko suuxal ñëpp xam nañ ko mooy problème de gouvernance bonne gouvernance c'est-à-dire dañ fa doon teg ay yoo xam ne li leen neex lañ doon def ci alalu post bi di ko di ko politiquer di ko pamti pamte di ci faj seen i soxla alors que alalu askan bi la poste dafa nekk loo euh, institution financière boo xam ne dafa yàgg ci réew mi ñëpp a ngi koy fàttali muy suñu mag ñi suñu maam yi suñu papa yi ñoom ñëpp dañ daan dam poste ñoo ngi ko mandaa ba donc post dafa jiitu ñëpp ci institut ci mbirum finance moo tax nag kenn war ko bàyyi mu naxasan d'autant plus que dafa am ay liggéeykat yi fa nekk yoo xam ne bis bu poste daanoo ñoom ñëpp dañuy dem au chômage am ay clients yoo xam ne dañ fay dañ seen xaalis tey mënuñu cee jot ñi nga xam ne dañ faa domicilier seen salaire mënuñu koo jot mu nekk mbir moo xam ne teguwul ci yoon tey da ngay gis sax ku def chèque barré chèque barré mooy chèque boo xam ne day jaar ñaari banque war a jaar banque centrale pour ñu jox ko xaalisam nekk ci biir compte ba du mën a jot xaalis bi cheque bi di revenir impayé te chèque bu impayé yow dañ lay dagg yow mi ko émettre comme ba ki ko jox tamit ñoom it dañ koy dagg loolu responsabilité banque centrale la parce que normalement li mu waroon def mooy dàq post compense parce que banque bu ko def dañu lay dàq comme institution financière bu mel ni poste bu ko defee tam dañ ko war a dàq du yoon tey nit ki yor ci xaalisam euh, ci tam xaalis bu doy def benn chèque ñu ne ko chèque bi mënoo ko fayeeku wala chèque bi ñu koy rejeté wala ñu naan ko nangam rek deux cent mille wala cent cinquante mille rek nga mën a jël ci biir bi loolu nag moom dafa teguwul ci yoon moo tax ñun ñu jàpp ni il faut que état bi dugal ci loxoom recapitaliser poste euh, tamit jël ay mesures contre la bonne gouvernance parce que ñun jëkk mosuñu xam ni poste day joxe prêt bu ñu ko yëgee mooy bu ñu si jàppee ay yoo xam ne 1,5 milliard dañ ko jël séddoo ko seen biir lebalante ko seen biir mm-hmm. mu yee agent poste donc problème de mal gouvernance moo ci moo ci moo ci rax te état da ko war a assainir recapitaliser ko euh, bu ko defee. Euh, poste nekk euh, institution financière boo xam ne day jàppale askan bi ci jàppale boo xam ne banque yii fi nekk tey nga xam ne ay banque étrangère lañ ay banque commerciale lañ dana tax tey ñu wàññi seen i taux parce que tey mi nga xam ne poste bi nga xam ne moomeelu état bila la moomeelu askan bi la tey bu wàññee ay mbiram beneen banque bu yokk boo moytul danga nga daanu moo tax ñoom ñëpp dinañ fexe ba ajuster seeni produit ci produit euh, ci produit wu yu poste donc poste foofu lañ koy gën a xaaree moo tax ñun mënuñoo nangu poste daanu dañ ne duñ ko génn dañ koy toog parce que mbirum état bi la dañ koy toog mais tamit buñ fay toog tamit nañu fexe ba euh, état bi jël ay responsabilités ba coono bi ñuy dund jamono jii ñu bañ ko dund di dundati soit euh, ñu ñuy fay normal suñu suñu alal ah suñu alal ñu fa bàyyi tamit bu ñu saa yi ñu soxlaa ñëw jël ko wala boog banque centrale ak état du Sénégal jël seen responsabilité ci boîte boobu. Famara si Cissé maa ngi lay jaajëfal. maa ngi lay gërëm di la sant. may fàttali yow yaa jiite association des clients et sociétaires des institutions euh, financières ñu koy wax ACSIF. jërëjëf.